internet yi daleen ak jàmm ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di ñëw ak yénn ci seen revue de l'actualité nekk li nga xam ni yi fi jot a xew ki nga xam moom mooy Ousmane Sonko affaire bi mu sekk xale bu jigéen bi di Adji Sarr lu bees daal dina ci am benn tànta ci ci Adji Sarr di génn daal di def benn audio boo xam ne mën naa changer li nga xam ni moom mooy euh, doxalinu mbir yi lutteur bi nga xam ni moom mooy euh, Bébé Saloum ñu daal di koy jàpp ak 1 million de francs CFA ci faux bi loolu a la ci biir seen revue de l' de bu ñu ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d' information limametti point com ñu daal di koy dooree ak histoire bi nga xam ni moom moo opposé ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ak bu jigéen bi di Adji Sarr ah, fan yëpp yéen a ngi dégg ñu koy waxtaane fépp waaye li nga xam ne lu bees nag moom mooy am na ci moom mooy benn tante ci ki nga xam ne moom mooy xale bu jigéen bi daal di ay révélation révélation yooyu nag moom mi ngi wax ni ah, ci benn waxtaan boo xam ne bett na ko nijaayu Adji Sarr di waxtaan ak xale bu jigéen bi ah, ñi ngi doon wax ni dañu ko fay xaalis ngir mu daal di takkal ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko loolu nag di ay révélation yoo yoo xam ne tante ji def na ko moom nag nee na waxoon na leen ne dina génn daal di leen di boole loolu la daal di def daal di def benn audio daal di wax ne ki nga xam ne moom mooy nijaayam moom mooy complice u xale bu jigéen bi di aji Sarr te dañu leen fay xaalis ngir ñu daal di takkal ki nga xam ni moom mooy usmaan Sonko mbër bi di Bébé ñi ngi leen ko doon annoncé dañu ko jàpp euh, li nga xam ni moom mooy police bu Kër Massar li ñu ko téye nag moom mooy 1 million de francs CFA yoo xam ne ñi ngi ko fekk mu yore ko ci loo xam ni faux euh, la moom nag ñi ngi ko jàppandoo ak 5 personnes bi ñu leen fekkee nag ñi ngi yore woon xaalis boobu ak yeneen 3 euh, millions valeur de 3 millions de francs CFA yoo xam ne mercure la nga xam ni moom mooy servir pour raxas li xam ni moom mooy faux yooyu loolu nag tax na ba police daal ubbi enquête ngir xool ñeneen ñi nga xam ne takkee nañu ci mbir moomu jamono ji nag ki nga xam ni moom mooy bébé Saloum ak cinq personnes yi nga xam ne jàppandoo nañ leen ñu ngi leen téye en garde à vue ñu daal di dem ñu daal di war a dem wuyu ki nga xam ni moom mooy procureur mardi bi nga xam ni ci lañ jëm ñu daal di wax uh, ci jigéen ñooñu nga xam ni jàppoon nañ leen fële nga xam ni moom mooy cité kër góor gi ñu doon manifester uh, ci li nga xam ni moom moo dal Ousmane Sonko 17 uh, femmes yooyu nga xam ni bokk Pastef depuis vendredi nag téyewoon nañ leen fële nga xam ni moom mooy police waaye nag tey ci suba lañ leen daal di déféré ñu daal di jàkkaarloo ko ki nga xam ni moom mooy procureur ngir mën a ngir mu mën a décider ci seen sor ñu leen di fàttali nag ni 44 personnes daal di nañ leen jàpp en 48 heures ci affaire boobu nga xam ni moom mooy affaire Ousmane Sonko di ko opposé ak xale bu jigéen bi nga xam ni moom mooy aji Sarr kii di président Macky Sall nag ginnaaw bi nga xam ne jël na première dose vaccin wam ci semaine bi ñu génn bi mu paree daal di ne def déclaration ci biir déclaration boobu nag moom ma mi ngi mel ni ku doon menacer ñi nga xam ni ñoom ñooy population yi dinaan leen vaccin yi ñoom suñu ko bëggul da koy may yeneen pays africains yi nga xam ni soxla nañ ko ñu bëri nag jàpp ni loolu erreur de communication la parce que ki nga xam ni moom mooy président de la république warul waxee noonu moom mooy xalaatu Seydou Gueye Seydou Gueye nag bokk ci ki nga xam ci fi nga xam ne moom mooy mouvance présidentielle moom nee na euh, ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall dafa wax wax boo xam ni moom mooy l'essentiel maanaam dafa xam euh, communication di communiquer ci l'essentiel moo tax mu waxee noonu loolu la Seydou Gueye euh, daal di xamal ci propos président Macky Sall yooyu nga xam ni ñu bëri ñi ngi ñi ngi ci doon indi ay polémique beneen audio whatsapp bu daal di fuité di audio boo xam ne président Macky Sall moo ciy wax audio bi nag mi ngi ciy wax ak ki nga xam ni moom mooy Moustapha Cissé Lo jamono ji nga xam ni doon na génn di wax ay wax yu ñaaw jëmale ko ci ay camarades de partem mi ngi ko doon demandé mu daal di calmé wu maanaam mu daal di arrêté loolu nga xam ni moo ngi ko doon def audio boobu nag kenn xamul fan la daal di jóge ba daal di génn fi nga xam ni moom mooy ci média yi waaye ñi ngi ciy dégg ki nga xam ni moom mooy président Macky Sall lancé message kële nga xam ni moom mooy Moustapha Cissé ñu daal di wax ci appel bi nga xam ni moom mooy appel des layam di 141e édition bi nga xam ne war nañ ko amal le 15 ak le 16 mars euh, prochain ñëpp doon euh, xool di xalaat ndax dina am wala du am waaye ki nga xam ne moom mooy euh, Seydina Mandione Thiaw Laye di doom ci ki nga xam ne moom mooy xalif général des Layènes daal di génn daal di wax ni li nga xam ni moom mooy appel bi dina am waaye amin bi nag du bokk ak yeneen at yi nga xam ni jàll na fi amin bi dañu koy def ci li nga xam ne moom mooy respect des mesures barrières daal di respecté lépp li nga xam ne coronavirus euh, da koy bañ ngir feebar bi euh, bañ a lawoo waaye mi ngi confirmé ni euh, li nga xam ni moom mooy appel bi dina am le 15 ak le 16 mars bi ñu jëm. wala mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen revue de l'actualité nekkoon li nga xam ni moo gënoon fës ci information yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti point com ngir dara bañ leen a raw di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i xibaar.